salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp turu sëñ Mor am lu ñu waxoon ci tàndarma ci wàllu njëriñam ak baax gum baax lool ci wàllu yaram waaye dana am ay sew-sew yu tuuti yuñ ci dugal itam ci njëriñ goom gi am ci doge tàndarma dogee tàndarma ndax bu dara it bokk na ci ndigal yi nga xam ne wàcc na ci borom xam-xam yi ne alayhi salaatu wassalaam digle woon na ko ku ba ngoon jot waaw bu amee mbanax mooy yu tooy jooju mu dogee ko su ko amul mu amee tàndarama ji ma dog su amul mu góox góoxi ndox dogee ko tàndarama jooju nag ñuy doge noonu boo gisee li tax boroom xam-xam yi wax nañ ci lu bari waaw ci ndigal loolu ñu am ci alayhi salaam ndigal loolu rek amna ay njëriñ yoo xam ne da ko cee def ndax tàndarma lu bëri ay vitamine la yoo xam ne bëri ay ferñent yu bare bare yoo xam ne yaram da koy aajoo rawatina nag ki nga xam ne dafa woor surtout woor nga xam ne xëy na ba jënt so diir bu yàgg def ay waxtu yu bare bare yoo xam ne lekkul kooku am na yu bare bare bari yoo xam ne su jëfandikoo tàndarma noonu mën na ko ci dimbale ndax gis nga xiif boobu nga xam ne moom la yaram wi yëg yëpp du dara lu may manqué wàññeeku suukar si nga xam ne doon na ko jëfandikoo ci wàllu lekk yi te jëfandikoo wutum moo tax su boobaa muy yëg aw xiif boo xam ne ak lot sonn goo xam ne dara defu ko lu muy wàññeeku boobu loolu nag su jëfandikoo ma jooju moo xam comme niñ ko waxee ñetti tàndarma juróomi tàndarma ba ci juróom-ñaar loolu su koy jëfandikoo man na koy dimbale gaaw muy sonn boobu mu sonnoon ak xiif boobu mu xiifoon ci saa si lay ci minit yu gàtt surtout mu def ko nag dem ba julli ji timis door a ñëw door a lekk su boobaa it dana ko aar bu baax a baax a baax ci gis nga lekk gu fër gim bëggoon a lekk noonu dootu ko defate ndax li ko def mooy bi muy jëfandikoo ma jooju rek ma ji dafa am suukar am soosu dafa gaaw ci dugg ci yaram ba àgg ca deret ji soobaa coono bi mu yëgoon noonu ci koor gi ak xiif boobu mu yëgoon ci koor gi su jëfandikoo tàndarama yooyu ci saasi loolu day dañ te dana ko dimbale ba nga xam ne du fër ci lekk gi ndax tàndarama soo ko defee lekkee day dalay aar ci xiif te dalay jox ak regg dana tax ni ñenn ñi lekkee ci foofu bu ñu wooree ba nga xam ne suñ dogee dañuy lekk ba dootuñ mën a def yenn yi guddi gi lu may tëdd rek la def loolu soo dogee tàndarama jooju xaaral diir doola lekk loola yàlla mën na la ci defal tawféex ba loolu du kan ba tey foofu it gis nga naqari gi nga xam ne tey bu nit ki wooree da koy def te loolu di ko dara du ko def lu may xiif boobu ak cerveau bi li mooy def ak it sadir yi ni ñuy def ni ñuy mare yoy yépp su fekkee légui dafa jëfandikoo tàndaram bu lolu day gaaw a ci ñom ba tax na day wat ma tax bo sété sax lolu hadis naan ki wor am na ñaari mbégte waaw mbégte bu dogé ak mbégte moom nga xam bu dajé borom mbégte bu dogé gogu nak bokk na ci li nga mooy tàndarma jooju bu lekkee tàndarma jooju loolu da koy gaaw a yëg ndax àgg gi ag àgg moom ferñeent yu bari yooyu mu yor ci wàllu yuuru gi ak ci wàllu saddi bi loolu dana ko joxaat geneen cawarte goo xam ne su dogee woloon tàndarma du ko yëgee noonu te dina taxit ba nga xam ne te naan bu bari boobu ñuy naan ñenn ñi foofu ni ñuy gaaw a yitti woo ndox ak ni ñuy def ndox mi ba nga xam ne dañuy naana naan ba dootuñ mën na sax lekk kooku su jëfandikoo tàndarma jooju foofu muy doge ndax tàndarma dafa am ndox te ndoxam moomu dafa gën a foor ndox mu bare bare bare gën koo am njëriñ ci wàllu yaram ba tax na soofa it su jëfandikoo tàndarma jooju dana ko dimbale ba ci ni nga xam ne tey moom la yittewoo ndox surtout nag mu jëfandikoo dem def def julli timis xaaral du lu toddul cinq quinze minutes door a lekk dana tax yittewoo boobu nga xam ne moom la yittewoo woon ndox moomu loolu yàlla mën na ko ci defal tawféex ba danay eh, ko doyloo moom tànnal ma juge ba du naan loo xam ne da koy yàqal ci lu mu bëgg jëfandikoo ci wàllu lekk ndax ñu ci bari ñuy sonn dara yóbbee leen ko lu may naan yu bari yooyu ñuy naan ak ba tax dootuñ mën a lekk ni ñu war a lekkee ba tey jëfandikoo tàndarma jooju foofu ngay dogeete beneen njëriñu ci ndax mooy foofu dana fekk biir bi dara lu ci nekk lu ci ëppoon génn na te yooyu su yenn xeeti dese yi nga xam ne tey day des day ànd ak yenn tooke waaw yoo xam ne boo xam luñ lekkoon la wala lu ñuy koy naan loolu nag soo jëfandikoo tàndarma tàndarma ji foofu day am daa am fibre te foofu nga koy jëfandikoo day tax mboolem xeeti tooke yi nga xam ne moo desoon ci biir bi yëpp fibre boobu nga xam ne moom la tàndarma am day tax loolu day gaaw a sey day gaaw a rey si génn te dara du ci des kon loolu it njëriñ la ci woor ba ngoon jot nga doggee tàndarma bokk na ci njëriñ it mooy gaaw gi mooy gaaw a rees ndax tàndarma dafa bokk ci yi nga xam ne dafa gaaw a rees ba tax na soo koy def gis nga yenn xeeti seere yi nga xam ne tey day am ci nit ki soo ko jiitalee ci sa biir moo xam li ngay jëfandikoo ci diggante bi yooyu yëpp dina tax ba saa soo soxlaa mu génn rek loola mën naa génn ba na kon xeyti sere yi nga xam moy dal ñu bare bari ci walu koor gi te li ci ëpp manana ni ñuy lekkee diko def loolu su dogee ay tandarma jital ko ci mbiram loolu yalla mën na ko defal tawfiq ba loolu dutu ko yit ba tay bokk na ci njëriñ yi dogee tandarma jooju moy mooy li may lekk day gaaw ndax li may lekk day li ma dafa fibre te loolu dafa am yo day tax biir bi yëngu ni wara butit yi di yëngu ni ñu war a yëge te loolo su amee rek yenn xeeti jafe-jafe yi nga xam ne tey day am ci wàllu ñàkk lekk mu rees te loolo mooy juru ci uh, seere it loolu suñu borom mën na koy defal tawfeex ba loolu du yëg ñaareel bay dote bokk na ci li nga xam ne ay njëriñam mooy ngelaw yu toujours di jox jot nañ ci wàllu biir yi waaw ñenn ñi daam gaz boobu mën na leen di yóbbee ñii di géex ñii leen di yóbbee muy génn feneen yooyu yëpp it su fekkee léegi dafa jiital tàndarma bi mooy dog mu lekk ñetti tàndarma wala juróomi tàndarma bàyyi ba julli timis loolu diir bu toll noonu moo dooral lekkaat leneen dootu caa teg mooy teg loolu it dina ko dimbale ba xeeti gaz yu nga xam ne ñu baree bari ñu ñoom itam su koor gi ñëwee su te lekkee ñooy lekk noonu ak tegale gi ñu koy tegale noonu dañ leen ko yóbbee loolu tàndarma ju gisu ko jëfandiku loolu yàlla mën na ko caa defal tawfeex kon gis nga ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne boroom xam-xam yi nañ ko ci te ñi koy jëfandikoo ñëpp seetlu nañ loolu ci wàllu tàndarma di ko doge kon waxuma digal gi nga xam ne tey jëlee nañ koy sallallahu alayhi wa mu digle ko rek waaye loolu bu ñu nëppee boroom xam-xam gis nañ ci xeetu njëriñ yoo xam ne feeñ na ci ñi koy def boo koy jëfandikoo genn coono yi nga xam ne nit ki di koy yëg ci wàllu koor gi wala mu da ko yóbbee ci wàllu lekk wala naan yu jéggi dayo yooyu yooyu yëpp soo koy jëfandikoo suñu borom mën na ci defal tawfiq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jooju it mooy li may lekk day gaaw a rees ndax li may lekk day gaaw a rees ndax li ma waxoon tànn mooy dafa am te loolu dafa am ferñeent yoo xam ne day tax biir bi yëngu ni mu war a yëngee buti di di yëngu ni ñu war a yëngee te loolu su amee yenn xeeti jafe-jafe yi nga xam ne tey day am ci wàllu ñàkk lekk mu rees te loola mooy juru ci seere it loola suñu borom mën na koy defal tawfeex ba loola du ko yëg ñaareel bay bokk na ci li nga xam ne ay njëriñam mooy ngelaw yooyu toujours di jox jot nañ ci wàllu biir yi waaw ñenn ñi daam gaz boobu mën na leen di yóbbee ñii di géex ñii muy génn feneen yooyu yëpp su fekkee léegi dafa jiital tàndarma bi mooy dog mu lekk ñetti tàndarma wala juróomi ma bàyyi ba julli timis loolu diir bu toll noonu moo door a lekkaat leneen dootu caa teg la teg loolu dina ko dimbale ba xeeti gaz yooyu nga xam ne ñu baree bari ñoom itam su koor gi ñëwee su te lekkee ñooy lekk ak tegale gi ñu koy tegale doon leen ko yóbbee loolu tàndarma jooju su ko jëfandiku loolu yàlla mën na ko ci defal tawfiq kon gis nga ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne boroom xam-xam yi seetlu nañ ko ci te ñu ñi koy jëfandikoo ñëpp seetlu nañ loolu ci wàllu tàndarma di ko doge kon waxuma digal gi nga xam ne tey jëlee nañ koy sallallahu alayhi wa sallam digle ko rek waaye loole bu mu nëpp it borom xam-xam gis nañ ci xeetu njëriñ yoo xam ne feeñ na ci ñi koy def boo koy jëfandikoo genn coono yi nga xam ne nit ki da koy yëg ci wàllu koor gi wala mu da ko yóbbee ci wàllu lekk wala naan yu jéggi day yooyu yooyu yëpp soo koy jëfandikoo suñu borom la ci defal tawfiq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu